jërë ngeen jëf jur jëng jëng doon jaaba jonge ci assemblée nationale mu di projet de loi bi modifié article bu constitution bi yéen a kaay yu bari ñu xëyandool xëy nañu xamal ne retiré nañu ko vox populi bind ne mbambali ci am moo tax Macky dellu ca gannaaw boole ca bàkk wu rëy wi ñu koy bàkk ci réew mi fan yi yëpp gannaaw bi mu ne du bokk 2024 mu rafet woowee la di bañ lu ko xajamal moo tax mu ne nañu retiré ci projet de loi bi na ci réew mi ay acteurs politiques ak ñu fare ci société civile bi ñoo xam ne loi bi bañ a jàll jaraloon na leen lu nekk anki dina kaay coow la dakk na article bi ñu bëggoon soppi bi ñu ko yëkkatee coow la jóg na ca cobbay ca la ko tegaat fi suuf honorable député docteur Malick Diop ci xët mu njëkk anki muy wax ne président de la république moo sàkku ci ministre de la justice mu réformer projet de loi bi tëggaat ko ngir dindi ci modification yi ñu doon wax ci article 87 bi député Aba Mbaye bokk ci waa taxaw nee assemblée nationale mu das paaka ba mu ñëw rendi boppam maanaam sant ko ngir mu xaru Sud Quotidien nañu moo taxit assemblée nationale bañ na lool bañ na ne du joxe paaka bi ñu koy rende journal Le Témoin ñu bind ne Macky Sall dellu na gannaaw Le Quotidien ne ko ba far sax tas projet de loi ba lu ñeel révision constitutionnelle ak tastel assemblée nationale le mandat ne nañu Macky raxasu na ci ba set wecc Walf Quotidien nañu waaye terewul article 87 bu constitution bi pression bi ñu ko gàcc les économies nañu moo tax pouvoir bi dellu ci gannaaw boole ceeki député yi fare ci majorité bi bëgguñu woon sax projet de loi bi ministre de la justice di Ismaïla Madior Fall Source mi ngi ñuy xamal ne moo bind ab lettre démb Amadou Mame président assemblée nationale di sàkku ci moom ñu génnee ci projet de loi bi modification yi ñuy wax ci article 87 bi l'observateur xëy ñu baaxee waxtaan wi député yu Benno Bokk Yaakaar yi amal ak Macky Sall ba convaincre ko ba tax mu ne 2027 bi mbiri Karim Wade ak mbiri Khalifa Ababacar Sall l'observateur mi ngi ñuy xamal ne alxames ji di ñëw ci lañ ko war a lijjanti ci plénière mbir meneen mu i Sall war a lijjanti te du yomb ci moom l'observateur ne nañu mooy tànnal waa Benno Bokk Yaakaar ab candidat ci présidentielle yi 2024 yi ak déggoo journal bi gis na ne lu jafe la cay doon ndax ñi bëgg bari nañu la Sénégal nañu ci Moustapha Niasse ci la Macky Sall wékku ngir mu yombalal ko tànneef bi mooy woolu candidat yi di leen déglu benn benn bés bi la jour nañu ca ñamuy déglu am na ca kenn ci ñoom ku tàmbale salfaañe carte gi mooy Mouhamed Boun Abdallah Dionne bokk na ci ñi ñuy xaar ñu wutu Macky Sall gisee na ak Moustapha Niasse dimanche ji weesu ba ñu waxtaan moom Mahammed Boun Abdallah Dionne nit am na ku ko jege loolu ko xamal journal bi ne Boun jonn du moom moo sàkkoo doon candidat dañu ko proposé Aly Ngouille Ndiaye ak Abdoulaye Diouf Sarr bés bi le jour nee nañu ci bésub tey bii ci la ñu war a ak Moustapha Niasse lu tax Macky Sall taamu Moustapha Niasse tànn ko ngir mu waxtaan ak ñi bëgg a doon candidat Benno Bokk Yaakaar journal lii quotidien mi samp laaj bi ci xëtamu njëkk ma ngay joxe tontu li cër ak na ci Moustapha Niasse ancien président assemblée nationale national au conseil bu président de la république doon it président adjoint conférence des leaders bu Benno Bokk Yaakaar mën naa gën a ñoŋal tànneefu Macky Sall le candidat yi yëglu fas yéene samp seenum dënd ngir bokk ci élection présidentielle yi 2024 yi journal Tribune xëy na def ci ñoom ab taxaw seetlu ba di ñu xamal ne ëpp nañu fanweeri candidat ci ñoom am na ci ñoo xam ne bëgg liggéey Sénégal moo leen tax a jóg ay wéré patriote lañu am ci ñoo xam ne dañoo bëgg a ci réew mi ba defar seen bopp defar seen àdduna am na ci nag ay xuusma ñàpp yoo xam ne dañuy caaxaan ak di fooy seenum xel ay farceur lañu licence su 5G bi ci réew mi la Sénégal nee nañu ci loxoy Sonatel ci la mujj 19 milliards la ARTP doon laaj opérateur téléphone yi ngir mën a jot ci licence 5G bi Sonatel ñëw teg ci taabal ji daanaka double ba 34 milliards 500 millions la Sonatel joxe ngir jot ci licence su 5G bi xañ ko Free xañ ko Expresso journal bi teg ci bind ci xët bu njëkk ne état bu Sénégal encaissé na fanweeri milliards ak ñeent ak genn wàll source waa nañu bi ñuy jaay licence su 5G bi mennam Sonatel rek moo ci respecté prix bi ñu waxoon Free